dëgg la coon dafa xàll mhm. maanaam sama papa lu mu lâché woon rek mhm. ah yul naa ko dañu toog kër ga mu ne ma groupe coon bi ma ne ko waaw mu ne ma Ramadaan ma ne ko waaw mu ne ma mais man tuddee naa ko Waali Daan ah alhamdulilah moom nag il ma jetait pas les fleurs moom dafa naan bëgg wax dara sax du ma ko bëgg wax parce que day bañ sax ma gis dara mës naa sur scène ñëpp yuuxu waa yuuxu yuuxu mu ñëw mu ne ma li nga way baaxul foo may way di tuur xewal kay ma ne ah tey la ma koy mujjee wax de bés boobu laa commencé prêter attention di jouer di bàyyi xel kii jouer li muy jouer est-ce que maa ngi ci gaam bi mm-hmm. donc fàtte mukk c'était en 2009 fii si c'est ça Papa Thione mm-hmm. bés boobu laay doo ko xel ma ne léegi man chaque ba léegi boo joué boo ku def ku jàdd ma xool la. nga ne ma nii. Mm. parce que xam naa ko. daf ma daf ma daf ma tette. Ah. Papa Thione daf ma taataan. daf ma tette ci lu bari. Mm-hmm. Ah, moo tax ma ne lépp lu mu lachu rek man ah huile naa ko. <laughs> macha allah question yi lii la woon donc on a voulu partager ce plateau ak. Euh, les autres animateurs parce que ñoom tamit euh, ils ont beaucoup contribué ci carrière Wally Seck waaye tamit ils ont beaucoup fait pour euh, ce mois de décembre parce que am na ci ay plateau yoo xam ne ni euh, jaar na ci ci mois de décembre mais avant ñuy ñëw ci show bi Wally 2022 la ñu nekk jóge nañu 2020 jóge nañu 2019 yooyu yëpp passé nañ ko de la ñu nekk tey defe naa ngay def sa première soirée incha allah ci atum 2022 bi incha allah. incha allah mais ay changement dafa am dégg naa. waaw moom lañ bëgg de. sama bëgg naa nga teel a ñëw wala nga ñàkk teel a ñëw. soxna moom la nga tëb question yi nii da ngay da ngay yàkkamte parce que moom dafa bëgg même temps xam nga man daf tout le temps dafa am ñu may waxal nag. ah léegi ñi ngay waxal da nga leen di nañ xaar parce que question xaaral ak li ñëw ci question bi léegi ñaar question nga dese yow. seen quatre questions. non yow ci quatre wala cinq. léegi xaaral ñu ñëw ci biir xaaral ci quatre wala cinq. parce que lu ko mooy fii day toj tey léegi non fii nag changement dafa am ci soirée yi. il paraît que Wally Seck public bi ñëw wala ñu bañ a ñëw deux heures du matin moom mi ngi sur loolu laa bëgg. d' accord ay waay ngalla nañ ma ci dimbali. Hmm. soirée bi jeex ku ne ñibbi ñi ndekki ndekki ji. que suba lundi la. Mm-hmm. ay waay dimbal leen ma ci. mais tey deux heures yaa ngi ci kaw scène bi. da ngay dem deux heures nga taxaw ci kaw scène bi ñëw soirée bi du ñu ñëw. ñoom ñooy xaar heure bu leen ils viennent pas en fait c'est ça le problème. mais est-ce que boo defee deux heures tey. dimanche deux heures. loolu mooy way ba dagg parce que man kaay ma xamal dara nag. mais sa heure bu jotee tu arrêtes. sama heure bu jotee ma wàcc. waaw mais del teel a ñëw comme te fekk boo teel a ñëw tey une leçon pour demain. waaw comme ko fekk suba ngoon ñu teel a ñëw waaye di ma leen ma deux heures. tout <laughs> o'clock tout deux heures. o'clock eh. deux heures. waaw ah. deux heures trois heures quatre heures quatre heures trente mu jeex day gën a mais boo yëgee trois heures cinq heures nga wàcc ñun ñoo perte seen yi ñoo perte deux heures mhm. ñoo perte trente minutes. bien wax leen ni deux ngay ñëw. Eh ngir yàlla incha allah deux heures. aywa <laughs> eh ngir yàlla. deux heures mujj nag saraxoo. deux heures Abi ñëw ci question yi. alors euh, Momo uh-huh. euh, xam nga lu nekk da ngay dama leen fekk ngeen nekk ci température waxtaan bu neex. bu mhm. ma ñëwee di dugal question day métti. ayca ñun faramaareen dañ ñoo xam ci tey. Ah, rek dëgg la war dañuy def ndànk rek question yi daal di ñëw. waaw ñëw rek xam naa damay baab ni ñëw rek. <laughs> alors kii moom nee na euh, bonsoir Waly d'accord d'abord merci pour les télé pour les euh, téléspectateurs et les spectacles que tu nous donnes tu nous as offert aussi dans ce mois de décembre mais je voudrais savoir quelles sont les perspectives de Wally pendant cette année on attend quoi de lui ci année bi année 2022 mm -hmm. brillance c'est-à-dire Wally mu tas incha allah partout dans le monde entier mm. loolu rek laa surtout en Afrique loolu moom bokk na ci sama pas-pas ak sama yéene tas partout xam nga jëmm ju tasaaroo moom neexut ci loolu laa bëgg mm-hmm. waaw alors kii moom nee na euh, yërmande bi Wally am envers ses fans mm. complicité bi mu am envers fan fans mm-hmm. comment il fait pour tout gérer ndax moom lu neex ay fansam neex na ko mais da koy teg ci yoon comment il fait waaw li may wax rek euh, suñ borom bu la yéene bu diisee dina la jox bokk bokk antenne mhm. waaw gis nga seen fardeau dëgg la gannaaw plaisir bi su ma demee ba mënatuma ko rek gérer mhm. je me retire mais je veux blesser personne bokkuma ci ñi nga xamante ni euh, man damaa ragal tooñ dama ragal àq bilaay ku ragal àq la mhm. xëy na sax moo tax fu bëri fu ma war a àgg mhm. àgguma fa parce que ñëw ma ak waaw Mohamed damaa bëgg hmm. ëllëg incha su bàyyi jotee hmm. incha allah dina ñëw ah. su bàyyi jotee waa xaaral defal nànk rek su bàyyi jotee <laughs> mhm. ma taxaw ma ne musique naa ba wàcc musuma dem ci sëriñ ne ko may ma bayre mm-hmm. musuma dem ci sëriñ tudd baatu diw xaw ma nuñ koy defee xaw ma nuñ koy wutee musuma bokk ci lobby de près ou de loin j'ai par une banque mm-hmm. dugguma ci loko loko je blanc comme neige def naa sama musique lii la yàlla may fii laa mën a yam loolu dama ko yàkkamti moo tax ñemewu ma ak te incha allah na am parce que je suis l'artiste su ma neexee ñeme naa ko waat j'ai fait partie des artistes les plus clean du monde. les plus malgré yi ñuy dégg yëpp. non clean xam nga clean dafa leer. Mm-hmm. clean clean set. set nag du sol colin déedéet set. ci xol la pureté ak mentalité. tu parce que tey nit sii na fi bu tëddee di nelaw. nit yor na fi am naa lu ci biir. loolu mooy alal bu tàng alal boo xamante ni boo wéccee da ngay am gàcce. man li ma am néew baa mu bari. Mm. dama ci fier ba tax nu ma neex laa koy def. parce que amul condition. Mm. nit ki ki lay jox. moo lay conditionné waaw. du ànd ak te du ànd ak ndimbal yàlla du ànd ak maa tax. du ànd ak coono. alors dama yàkkamti bés jot ma taxaw ma ne ah gàcc ngalaa ma man ñii ñuy woowee lii ca xaj ñii ñuy woowee lii ca xaj ñii ñuy woowee lii ca xaj yàlla dogal na def naa sama carrière ba egg si fii te musuma jaar ci yéen. dégg-dégg la ça c'est allah ça c'est Ibrahima. léegi jàll tamit ci ah. beneen question bi. Hmm. ndax ñii ne nañ demain euh, yi dañuy def li nga xamante ne mooy di seen match. Uh-huh. ñoom ay fan du foot lañ. Hmm. bëgg nañ xam lan mooy contribution yi ak hmm. lan lay ñaanal Lions yi ak lan la leen di digal. waaw avant tout maa leen di ñaanal jàmm. Euh, li nga xamante ni yéene bi Sénégalais yëpp am. Mhm. Euh, bëgg ko ci ñoom yàlla na ko yàlla motali. ñoom tamit am nañu yéene. Mhm. parce que bàyyi nañ seen i ñëw ñu ngi leen di gërëm di ñaan ndam dañoo bëggu coupe. Mhm. ñaankat yi nañu ñaan. waaw <laughs> da ngay toog ci dëkk bi gis internet bi. Serigne diw Serigne diw Serigne diw Serigne diw waaw ñoom mën nañ kii waaw dañu wax ñu indi coupe duñ naan ñu ni ko. coupe bi en tout cas il est temps. non mais Sénégal il peut avoir des marabouts à Dakar au Sénégal. s'il y a pas l'enjeu cest à mais doo dégg mu you know ok ren mii lay amee ren mu demee nii ay na ne coupe bi. ah football dafa am lu mu àndal. Mm. ñoom xam nañ ko kay te ñu ni koy wax nañu ne coupe bi. aywa ñu ngi ñaan réalité bu ñuy di des ñii di suul tamit. maa nii <laughs> maa nii dañoo bëgg ko <laughs> le Sénégal a besoin de ça. en tout ah. xam naa temps bi xoj nañu. temps bi xoj nañu en tout cas. ñii laaj nañu album bi ak euh, mbalax bi ak. Euh, lan la ñu waaree di waajal album international bi question la. wax naa ko fu ne nee naa bomb la loolu. Hmm. kañ lañ ko mën a xaar. ah dépendre ci man de. Hmm. damaa signé papier. Hmm. boo xamante ni sortie exclusive bi dafay dem foofu mm-hmm. Mm-hmm. alors bu liggéey bi euh, matee rek ñoom dinañ ko génne mais li bari pare na mm-hmm. lépp pare na sax lay wax man kay maa yokk léegi maa xool sax lu neex ma ne bii sax doyu ma ma génn ko génne ko single yu bëri dama ko génne génne ko single xool yeneen ñu gën a tàng ma dugal ko ma dugal ko togg naa ko ba mu ñor xajul ci disque d'or laa la wax mm. <laughs> bàyyi ma yow <laughs>